motax nak xunt fa nga am fo laq te moy nga dajé wuli bu mut wuli mo làq la ci tariqa bu tan ni tariqa Seydi Cheikh Ahmed Tidiane nga xamni ne sëñ Babacar nee na iblisul abadisi khaybatan wa qad azzahu lbutlaanu ha huwa aayuhu iblis bi nga xani moy mooy iblis ndax iblis tudul iblis azazil zil soo demee ci évangile yi ñoom beneen tur ko wutal Lucifer ak yu kenn xamul li tax ñu tudd ko iblis ablasa mublisuuna mublisun mooy ku naagu ci yërmande yàlla waaw moom mënatul defaw iblis moomu yàqule ba naagu ci yërmande yàlla dafa am ay moroomu iblisam moo tax pluriel bi mooy abalis mu ni iblis ni ñuy wax xam nekk patron iblis yi ni muy garaaw garaaw dafa gëlëm ndax lan xaybatan dafa sooy sooy mooy ku rëbb mënoon am dafa doon rëbb ci tariqa bi mënul jàpp waa tariqa bi lu tax mu sooy mu ne waqad azzahu tëla ko albutlaanu yàqal waa tariqa bi ma te a yëgal ne woo moom li oo mi ngi nii jaaxle lool jàq lool ndax fekk amul kum yàqal moom day am naqaru xol kon tariqa bi garanti la këf la caverne la booba làqu ndax caverne bi dañ daal di tëj soo duggee ci tata bu mel te loolu Seydi Ibrahima Raay way na ko Seydi Cheikh Ahmed Tidiane tax alaaj wax na ko Cheikh wax na ko yaay sama zamzam yaay sama xatim yaay sama marwa yaay sama kër fii lu nekk moo tax alxuraan soo koy firi di yem ci baat yi nii rek doo ko dégg si Malik ne li kulli asrin maanin jamono bu nekk dafa am ay maana ay sens yooy jox laay yi yu bokkul ak prix mañ ko doon firi bu jëkk am doo ko jëriñoo alxuraan bawul dara li kulli asrin ñeel na période bu nekk maanin ay sens yoo xam ne laa yunaziuha du sañ xëccoog moom sens yooyu ci waaxu beneen période ba ñu ko doon firee na la wax leen dëgg yow ñu ko firee nii waaye nag dangay am ndigal soog ko sañ mën firi waaw puisque ndigal du waxuñu ñëw ëpp la de al izn al ilmu moo ca bil azini bi ci nuun ya lu muy fi ci xam-xam ñuy dégg labbayka bi yonent doon labbayka wu ci ndëkk mbaam Ismaïla ànd ak xam wax ji mu leer naññ al azan bi firi nodd lu muy firi al xam le ne waxtu yi jot na kon al izn xam-xam moo ci jiitu moo tax nit mënu la jox ndigal ci lu mu xamul waaye ñëw rek ëpp la ñi xamuloo dara ci li ngay wax doo ci jariñu wala du sori ba ca amee xam-xam ba noppi nag la la waa ji soog a am leer bu mu la ëpp nga soog ko boole ñoom ñaar dem boole ci làmp bu ma tëkk ragal yàlla gu ma tëkk lañ la jox soog la jariñ ñu beru seen beru bu yàgg boobu nag noonu nga koy defee ci tariqa moo tax borom ibnu ataylaay nee na soo jëlee dugg ci wàllu yàlla doo wut feeñ da ngay suul sa bopp ni jiw bi suulee boppam jiw soo ko génnee ci biti mu yàqu kuy wut yàlla soo bëggee siiw yàqu su suule soo suulee jiw bi dana sax bàyyil ba yàlla saxal la sëriñ bi aaral la boppam ba xar yeeg yeneen yi yàq criquet yeeg ya caaju gunóor yeeg dara du la laal ba nga mën a demal sa bopp ñu soog la bàyyi ma da siaj mari daf daan wax ne te jamono ji la gën a garaaw de jamonoom la ko daan wax dënku ci dëgg li muy jafe-jafe gis ko ci àndal ko gën a jafe maanaam sëriñ bu mat sëriñ loolu li muy jafe-jafe nga gis taalibe bu nangoo tënku ci wëli bu mat wëli mu di ko ca nampatal la ko gën a jafe nit dana xam ne diw wëli mi ngi ci dëgg waaye bakkanam du ko may mu ñëw tërbiyewu nee na loolu li muy jafe-jafe nga commencé tërbiyewu yi yàlla mayu la patience muñ bu toll ni nga nangoo tërbiyewu ba bu yeewil la boppam a ko gën a jafe ndax sëñ Babacar daf daan wax ne si Hadj Mansour xam nga Mamadou rek la ko daan wax Mamadou man jaaxle xale yoo xam ne dañuy xëy dal ci cëpp àgg ne àgg nañ ci yàlla man yeewu ma leen yow yeewu woo leen kan moo leen yeewi yaakaar naa doo nga lay jur xëy ci bàyyi ko bi cëppiiru loolu moo tax fokk nga am ci ndigal loo xam ne borom ndigal leen wax de borom ndigal mooy ko am fànn rek ñëw ñii ci yàlla loolu du dem fenn ngelaw yi jafe la ah tur yàlla bi dafa am nuuram ñu am zulmaan ñu foog ñu butti ko ni muy buttee jën ndax seytaan yi ci tur yàlla ni di dundee su ko buttee ba noppi jël li ci seytaan yi soxla sànni leen ko ñu may la jàmm yow nga soog a dese sew jën yow du ca yem de mu jël leeru xolam wërale la ko ba duñ mën a agsi ci yow ndax bu ñu lekkee ba mu jeexit dañu lay songaat su amul leer bu la wër nag nga yàqu mu ne muridul xar mi taalibe cheikh miy sang kuuy laayu daabu kenn mënu ko gotti ndax cheikh moom dafa mën sëriñ te sëriñ bu mët sëriñ keroog boo ajoo ci moom daf lay tiim ni picc njanaaw di tiimee doomam di ko aar nii ak laafam kenn du ko laaw foo mën a dem nag waaw te sëñ Habib ne dafa am nit jóge Algérie dem Allemagne jëndi tapi ay bandi gis ko xam ne kii ñu war na yor xaalis ñu yaakaar nekk xamuñ ne yorul xaalis ñu abordé ko ne ko tijaan nga mën a tijaan la loo fi doon wut mu ne dama jënd si woon bi ah foo jëm ñi mu ne damay ñibbi tapis rek mu def ñu ne non comme suñ mbokk tijaan nga kay dëgg nga toog añ naan ataaya bu fayee nga gont dugg avion xam nga ko tumuranke te boobu bandi yooyu leen di seet police bi mu ñëw ci jiitu te xamuñ fuñ nekk ñu dem yóbbu leen seen appartement dem di wootante pour rey leen Cheikh téléphoné ko te loolu yàggul de téléphoné commissaire bi nekk ko appartement sàngam band yi ngeen doon seet ña fa ñu ngi waaj a rey diw ñu yewal police ci ñëw fekk jàpp bi ñu ñëwee du amoon ñu ne mu ne ñu ne ko kan mooy mu ne mooy sama sëriñ bi ne ko ah mu ne ko non bu dee Cheikh bi ma xam moom si yenn kenn xaw mu ne ko non man ci ma téléphoné léegi kan jeew loolu tax nit di wut waaye bu doon ne boo amee sëriñ yàgg koo amul sëriñ yam kay loolu xaru lañu ada sëñ Malick Guèye mi mën firi alxuraan mu ne xasbaani xasbaani fii rabbi yam ko tese moo tese moo fii rabbi mu ne ñaari kuréel ñoo xuluñ seen borom Amérique nee na man aw ma borom maay sama boromi bopp mu nit ni mu foore kenn waru ko yëg nga ko diw mooy borom na nga ko jox bi ne ah kay am nga borom ñoo ñu wax ne dëgg mu loo ma ne ko نقولوا في وجود ربهم ان اسك يالا دابور اكزيستينا بو اكزيستي اسك موي يليف نيو اسك نيت وورول ام ليبر اتوتال يليف بابا كيرو بيم فيري لاي دي يانتي بي دا نيو فيليسيتو وا جن جارون صلى سيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر صلى سيدنا عمر سيدنا عمر صلى سيدنا عثمان مو صلى سيدنا علي مو صلى كجارو واو ne ko ni nga firee laay nga xam nga si xam nga arif billaahi du taawil alquran moo tax ñoom ñu kontaan ndax ba mu am at ya xuuti at lahum siyaabun soo xoolee ci saraay xuuti at passé la ci yéen ñu jàng tubaab fi'lu maadin la boo xam ne mabniyun lil majhuul comme fikat yi nag mënuñu dégg loolu yàlla ne dog ni mbubb yi ba noppi mbubb yi ña war a yàlla ne dog naa ko ba noppi kom firikat kadi ñom pour ñom bis penc amagul nan la yalla lay waxe ne dog na mbub ne ba noppi ya bis penc taxawagul sen mali ne loolu bi romb ne firi da ngeen yaakar ne kaso bi mbub yi ñu solal prisonnier yi dañuy xaar bañ tej la soga soog mbub non mbubb yaa ngi tege bo di la xaar kon nag xutiyaat li yalla wax la jarul tawi nan mu daar yow la naan maa dina la hikayatil xaal déedéet ni yalla wax ne xutiyaat dagg neen ko ba nopi dag ko ba nopi waaw ñu xam ne kon ci aarif la moom du taay looxu yàlla koo gis mu taay looxu yàlla dégg muusul wul kaamil bi dafa mat ba noppi ñii mu tëddee rek la tëdd yow la sa dégg di tuuti nag doo attan wax ji nga taayul ko nga tax siyaataan bañ ko taayul alxuraan ndax kitaabul mubin téere bi dafa leer ba noppi su leerul ci sa bopp yow yaa am problème nga war a dem sóobuwaat ci loxo nit yàlla parce que du texte arab bi moo koy firi ah déedéet saaba yi arab nen wala duñu arab li ci ëpp arab nen wala te daje àllaay day wàcc duñ ko dégg il faut yonent bi firi ñu soog a ah du arab bi de arab kese kese asala bi ngeen di firi julli da nga ci arab julli la daan firi ah, déedéet daawul firi julli koy firndeel am na beneen laay inna salawaatika sakanun lahu julli nga koy firé yow sa ñaan yow yonent bi sakanun ak dal lahum ñeel leen zakat bi ñu firi asaka daawul firi asaka ba baat yëpp jeex bii mu ñëwee dafa am beneen sens convention buñ tëralaat ci charia baat bi li ñuy firi bokk la la daan firi ci vocabulaire te noonu la gën a xóotee rek di dem di dem di dem bañ nga soog a mën a dégg ne bawul dara moo tax ñu bëgg jeune nag bu jàngee leçon bi ñu ko jox ba noppi bu mu yem ci texte bi moo moo boobu da dem toog di ko joxe leçon ba noppi mu toog xalaat ci leçon bi su ci xalaatee mu approfondir leçon bi xóotal ko su ko xóotalee mu def ci ay recherche ci génn ci luñ ko ci waxul limaamu limaamu Shafii limaamu Ahmed moom rek la gëm ko te ku nekk def sa ngir ba mu toll moom rek lay tagg ba doom ji jigéen ji mere ko ci lu tax sama baay di tagg kii te nawleem la ëpp ko xam-xam ba bis limaamu Shaafi'i gane ci ko doom ju jigéen ji nag dana danaa xam sama baay lan lay yéem ci kii far nag baay bi boole ko moom naan ko na mu ko duyal sa talal bi mooy wax damaa xam lan la fi nekkee nag la ko gën a naqar reer bi jot mu lekk ba mardi saay mu ne kii neen di wax ne nit yàlla la guddi jot au lieu mu teg sa télé bi dem ñibbi mu toog ci peron di xool lan la war a faraal yaa mu saafi tëdd nii rek ba fii ba fajar jot rek ñu nodd nodd bu mujj nodd salaatu amul de Cheikh Hadj ko wax mi ngi nodd yëpp nga war a asalaatu xayru mina naw mi ci njël ko yëpp waaw boo ko waxu rek def nga daay ah jànguñu loolu la Cheikh Hadj Malick wax ci kifaaya kifaaya li ko naqare ci diine ji lay wax nee na li xamal ne daawuñ bàyyi ba nodd bu mujj ñu wax asalaatu xayru mina nawmi yonent bi bi ñu bëggee ñu xamee nodd bu mujj waxul ne xaar leen ba dégg asalaatu xayru mina nawmi dafa ne bilaal su noddee innahu yu'zinu bi laylin bilaal de digg guddi lay nodde te riñ ba loolu lay jëriñ abdullah ibnu maktum moom balaa nodd ñu wokk ko ne ko fajar jot na jógal nodd kon du daawuñ xàmme yi ci baat yi yi ñu tudd a asalaatu xayru déedéet ñi ngi ko daan xàmme ci nit ñi kon amuloon changement ci li ñuy wax ak sa ñëpp asalaatu xayru mina nawmi nen di wax kon si Hadj Malick ne bokk na ci bidaa ñu njëkk ñi bañ a wax asalaatu xayru mina nawmi ñu am nodd bu mujj buñ tuddee salaatu amul maanaam nodd bu mujj ngay wax ci lan laa nekkoon sax ba tudd loolu waaw kay limaamu Shaafi dégg nodd bu mujj dal ne bërëg julli ñaar rakkay fajar ci xaj maari wax na ci tiir bi bokk na ci liy ubbi wërsëg nga jullee ñaar rakkay fajar sa kër te bañ ko jullee ca jàkk ja ak witre sa kër waaw kay waaw waaw farata bi fajar sa kër ñëw taxawala ko yow su ñu war a def da toog rek wala da nga bi ñii ne da ngay def tahiyatul masjid ñii ne dootu ko def ñenn ñi nag ne pour loolu bañ la ci fekk boo demee bul dugg taxawal ci biti bañ taxawal nga dugg moo tax borom xalil la soo ñëwee ci jàkk ñu taxawal farata nga bëgg a am yoolu tahiyatul masjid da nga koy yéene waale ci farata bi mu yóbbaale farata bi ah julli farata bi wax comme tey ñun bi ñuy def xam nga bi ñuy julli ji tàkkusaan fekk ne ñu kàbbar ba noppi xaraam na nga fekk iliman ci jàkka ji mu kàbbar ba noppi ngay naafi la te yow nuyoo ko jàkka ji farata boobu ngay julli ci nga yéene waale nuyu waale jàkka ji te da ko ci amaale jóg daw dem jàkka ja moom limaamu Saafi doom ji jigéen ji yuuxu ne walla nag bandi bu mag baa ngi na awaaw ah xanaa la nelaw ba mu neex la man salla bi xëyri wudu in amidan fa huwa kaafirun julli nelaw ba mu neex ku jóg julli yëfër sama ah bàyyi gëm ki yàkkam dina bàyyi jóg ba dal ci kaw yaa ngi ndékki mun a bàyyi mu ne noppi xamuloo dara noppi ñoo wootee ndékki limaamu Saafi ñoo toog ne ko bii de li ma dal mosuma dal yow tëdd jaaxaan daal di xalaat yaa aba umay rakki aba hurayra la maada faala nuxayr sa picc bu ndaw bi nga daan yor nan la def nee na demi phrase boobu laa doon xalaat génne ci cent cinquante masala kooku bokk na kuy jàng muusam kon xam-xam boo ko bëggee am fa faham naa Habib doon wax day dugg baay bi ne ko li ma la doon wax léegi génne na ci cent cinquante masala ñu ñuy jëriñoo ji ba bés pénc yonent bi nee na benn bunte xam-xam boo jàng moo gën nga naafila junne rakk waxoon naa la noppil xamuloo dara kon xam nga ne njàppam tojul nekk li nga gis mu tëdd yëpp nga fooga ne dee nelaw mi ngi xalaat looloo tax mu sañ jóg julli ñaar rakkay fajar mu ne ko biig boo gisee ma lekk ba sama biir bi ne kut dañu wax ne taamul xabibi shifa lekk sa ñami soppe daf lay saafara te man xam naa ni nga ma bëggee dafa génn gu sant bu nekkaan Thiès mu a bàyyi mu ne ma ah yow xam nga ne man dama la bëgg yow xam nga taabul xabib si fa ah kii waat lu ñu lekk dañ ko ci def amul laax amul fonde limonga rek ah déedéet ñun limong daf ñu neex rek <laughs> xam nga affaire bi dox moom du maat <laughs> sóoratul këf bi nag moo tax xale bu bëgg dem ci ngay mais nag boo ko toppee ba ci sóoratul mariam xale daf ci am cër suratu taaha ba saar yëpp kon nag affaire u jeunesse du tubaab yi rek ñoo xam ne mooy sport du monde l'islam ko gën a fonk sëñ Malick keroog bi ñu ko mujjee ziar ci clinique bi Usaamatu ibnu Zeydin nga xam ne 18 ans dong la am yonent bi tëdd ci lan sukuraatam dem barzak yebal xare ne moom mooy jiite xare bi te Seydina Abu Bakrin ci soldat mi la bokk moom moo ko yirif sayyidina umar ci lay bok nit ñi wax wax mu ne xale bi mo leen di yilif ni ngeen defoon ma jiital baayam ngeen di riposte maa ko defaat waaye la nga dégg xale yi mu ñu fi juddu barki démb gën leen xam yàlla yonent bi moo magoon ci biir famille Seyd ci amati yaan dafa magoon ci biir famille Cheikh Del Ghali amna mak Cheikh Oumar tat la moo tax ñu naan Adama aisha maam Alpha maam Faa Wade wele nii moo ko mag Cheikh Hadj noonu am nay mag yu mu bokkal yaay te dañu wàññeeku nekk taalibeem maam du Bouli bi ñu jógee fii di dem Tiwaawan ñemewuloon war fas te benn fas dina am Cheikh Hadj Malick ni ko ndigal la mu soog a ñemee war fas bi ñu romb benn dëkk ñu ne kee du ma ni Faa Wade wele ñu koy werante rombaat beneen dëkk ñu naan mooma de ba muy ñetteel ñu dab koog beneen fas mu ne looloo tax ma ne la woon nga war yow bu ñu doon dem ba Tiwaawan kenn xamula man nag xam naa ne balaa ñoo dox ñetti dëkk ñu dab ma jox ma fa moo tax man la nga war yow ma yàlla nekkul ci at ah déedéet lim doon junj léegi mi ngi ci fàkke bokk ni lii tax nit du xam waliyu fa wa shuhudun minhumul mumaasala maag diw ñooyam nit la comme man kasal muasara ñoo bokk jamono mënu fi dem bàyyi ko di ko gam-gamle ëppale wu ma dara ñoo bokkoon classe ñoo defoon lii ñoo nekkoon ci pinc bi yàlla nekkul foofu ku ko neex lay jox mayam yoonam nekku ci soo ko nangoo noppul soo ko nanguwul doo jariñ ak koo doon nag ndax yàlla xamul mbokk boo xasee joxe may da ngay futteeku liggéey wala doo am maa du boolee nga nee jenjuñ ko gaay tiwaat neen ko jël te topp si ajmali donc ku ko yóbbi mam Alfay serigne ci Hadj malik waye domam yeb talibé ci Hadj malik la sans exception ñëpp dañ ko fekki woon ci waaw xanaa ginnaaw gi de alaam ñu ñibbi ah déedéet xanaa léegi la ñu gars yi ana ana sidi cheikh Abdul Xaari da nga fa ne ci suus si lu tax toppatoo bu doon affaire dara sëriñ ci yaa kon nak yëf yi yalla mo koy jox bu ko neex te bu boba so gisee mandarga ba su dee leer am na sa danga da nga ko xam ando Sadio Malick ni si sëriñ kenn du la ko wax mi ngi ci fàgge ka ngay tànn nee na xorma bi nga koy xormaal day tàbbi sa xol da nga koy gis rek sa ni rës te dootoo ko mën dindi waaye waxuñ ne ki nekkoon ci sëriñu baay mooy nekk ci sëriñ ah Sadio Malick kuy sëriñu baay ah xaadar yi tax demul aju ca Maam Ousmane du tijaan Cheikh Omar Fouti baayam du tijaan mi ngi fii ci alwaar man ñëwuma ko ziar dem naa fa yaayam nga doon tëdd du tijaan même si ci am tijaan ay wéjuram du tijaan te soo dëbboo ci ñoom dog nga ci tarixa bi ci àlaaji Abdu bu lay may wir daf la koy leeral ne la tariqa bi tere bi ñu tere nga ziyaara wali yu bu ci bokkul li la xamal ne du parparloo su doon parparloo kon dañ ci seppi ne kon way juri seex mën nga leen ziyaara waaye bu leen ziyaara dog te ña nga ne caay du maj way juri Saaji Mari yii ci alwaar duñ leen ziyaara suñ maam Ousmane ngi nii ci siin buñ fa demee dañ koy ñaanal yàlla waaye duñ tëbb ci moom kon gañ du parparloo seetewuñ ci kenn ginnaaw bokkul ci tariqa bi bu la juró yi doo tëbb ci moom ndax leer yi ngay naane cheikh kullu ma faada wa baraza min zati al aliyati lépp lu bab bebe ba tan ñi wax ne faydu faydu yàgg na de waaw faydu ci yàlla la ko ma de nga la fa cheikh commencé wax waaw ñu xamul luy fay yàlla zati al aliyati kañ la xew ma est ce que amna ta yàlla wa kullu ma faada wa baraza min zati al aliyati lépp lu bebe genné ci jëm yàlla ji ci leer tatalaqaw zatu sayyidil wujud sama mama koy tatal sayyid bi soko wacc ci jimiyanti wa kullu ma fada wa baraza min min zati sayyidil wujud tatalaqaw zawatul anbiya yenen ci dess ñokoy tatan ben waliyu budul cheikh munu ko tatan leer cheikh rek mo am taxaway bi yenen ci taxaw ñu taxaw mu taxaw ñi tatan ci haqqatul muhammadiyya mu tatan kudul cheikh nak mu ne wa kullu ma fada وبرز من ذوات الأنبياء تتلقاه ذاتي فمني كمان شيخ تتفرق إلى جميع القلائق كما سيقول تبي مجدود من لدن آدم إلى نبق في سور كنان من مالك نانل man cheikh waye nak gis nga bobu moy côté bi mu tata ne ci yanenti bobu lay sedd ñi bokkon ci tariqa moom ñaari taxawaay la mu soog a am taxawaay boo xam ne day naane ci maama mu baasaratan du jaar ci yonent yi ci des moo tax mu ne am naa xam-xam yu yonent yi xamul ah ku dul sama ndax ci sama maam lu jóge direct ñëw ci man jot lu tee ñu gën ko nag bu kenn jaxase bidaat yi laa tëqti bi maziyatun afdaliyatan am jagle taxul a gën nit وقد يوجد في المفضول خير مزية دا ngay گن نيت با نوبي مو ام لو امول مام لا عربي واخني يوجد في النهر لي لاغا فك سي ديخ ما لا يوجد في البحر لودول فك سي گيج نيكو اوب ديخ كان امنا ني تي ام يوم جيگي نونو لي شيخ امي لو يوننتي امول دونتي نيو گن لولو موي تاتاري ديكتما سي مامام لولو دي تيب اي تاليب موتا ساني لو راخ نياري ndokh yi dañuy terale nga tebb ci wuli bu bokku ci tarixa bi do affaire ségrégation de so jaxé ñaari ndox yi da ngay sax loolu c'est scientifique ndox bi mi tataane ci maam mubasharatan bokku ak bi jaaré ci yonent ci a ñew moo tax moom xàmme da koy da koy tek fé bi pour sama talib la bi pour ñi ci def ginnaaw muy tëbb ñep kon nak lu ñi fi yagg gis nga sóoratul kahf bi moo tax tariqa cheikh moo ko tax ndaw yi ci tariqa bi cheikh junjoon nag ne faydu bi dana ñëw saa ci faydatun ay fuyoo daat ñoo am ci tariqa bi moo tax boo déggee ñee diw mooy saaxibul fayda ma ne yéen tardé ngeen di yéen benn faydu ngeen ndax ca arab wa faalatun li marratin tëgg faalatun benn yoon lay tettale kon ñoom benn yoon leen am inondation benn fay am faydu te cheikh indéterminé la ko def kon am na yeneen fu daal daat xam nga dafa ko déterminé su ne woon taatil faydatu kon benn faydu moo am waaye dafa ne taati faydu dana am benn faydu bu ñëw mais kon am na faydu yu jàll te mooy yi ma doon dund ba yàlla bi yàlla ba léegi amul benn jamono lu faydoo ngi wàcc mata si ajmal yi ne tafidu faydan ala al yallaahu nuuru min an nuuri qad awdaatu xikaman xam boobu benn sëriñ dafa am yàlla rek fi nekk ak yonent nuurul yonent bi leer la moom xaqiqa bi boobu jëmm yonent bi ñëwagul de mi ne nuur yi bu bàyyeekoo ci jëmmi yàlla ja moo tax mu taara ko ndax boobu yàlla la min asmaillaahi an nuur xat ca dëgg yow yàlla awdaatu yaa dénk leer gu njëkk googu mu yonent bi ci kaman ay xam-xamu sagesse xam-xam yooyu taf yi du day bëbb rek nag yi nga mu daar waxul ne bëbb na ba noppi de yi nga ca boo àndee mu daari te dullu ala fu mu toll day yees rek faydu bu dem beneen ñëw tafiidu faydan fu mu toll faydu yu sotteeku wala sëñ Adama ña ngi day toog di sotti ba yàgg taalibi bi ne ko waa mu ne ko attaati faydan de nii rek lay ñëwee di sotteeku moo tax ma koy jóore noonu rek taati faydan faydu bu fi jógeet nit yow kay yaa ci dul mos tafiidu faydan alal axlaaq fu lee yàlla ci mbindeef yëpp sëñ Babacar ni lu faydun ami euh, ya um yafiidu amima kullin cheikh a nga faydu boo xam ne cheikh la wax de waxul gaa yi ki ñu wax saaxibul fayda cheikh moo am faydu boo xam ne fu mu toll xam nga da nga am robinet waaye du ubbeeku mu ne waaye robinet bi yafiidu bi ngi bëpp mi ngi ubbeeku te bi mu ubbeeku dafa sotteeku ba inondé yemul faas amima kullin dafa matale ñëpp moo tax boo làqutoo ci xóot ni woowu nag ci ngay soog a nag foog xalaat nag ba nga mën a relever défi yi yi taxoon nga dem làqu ji ndax kenn du làqu ji pour ba faw mooy comme jiw bi ñu ji ate bi ñu toogee nag ba yàgg nag ñi yeew nag ñu delluwaat ci dëkk ba nekk buur ba deere bu yàgg ba buur bu falu gën yàlla lañ soxla woon ñëw woo tax njaal bi mënul neex mukk ah déedéet ku yaakaar ne da nga tëb neex loolu mbiru seytaane lay am waaye amul benn mbiru yàlla muy tàmbale neex soo ko gisee xamal ne loxol yàlla nekku ci day naqari yaa tax gis nga yonent bi wa kaana daawatuhu firran salaasa sinina yaa lahu ànda am na ñetti at day nëbbu bi ci kër la ko yemale ànda daari larxami al khadimi kay aji tagay bakkan ndax mo nango fat ñëpp mom kenn mu nekk ci bañ yang len waaw yamuñ ci julli de ku bokk ak yonent banu hashim bo demate ci teen bi duñ len yeen digeen ñi boo jëndee marchandise duñ la jaay ata ku yaakar ni da ngay nekk ci yalla mu ne xamul lu yalla yalla du ndax yoy ñu lay tek mo lay defar yow bu neexee doo am yàlla parce que da ngay nekk naafiq moo tax suufiyatu ala xayrin ma taxaalafu suufiyanke yi féeg ñu ngi wuutee ñu ci jàmm jéggoo tàpp paso day jur naafiq ah parce nit ñi ni leen yàlla bindee yàlla nanguwul ñu bokk xalaat su leen nifaax dugalee ci lu ñu nooxam nag nga ne ànd naa ci du dëkk li muy jur mooy bu ngeen dëddee jëwante motax ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli sayyidina bakar sayyidina umar tax moy waaw dañu toob yonent tubi xam nga du def lu mu diisawul ak ñom danaka te yalla daf len nattu bokku ñu martaba duñu bokk xalaat mukk ak ñi nek xari yeb kat wa min ni da ngay sincere ci idée da nga ko génne même boobu bu sayyidina abubakar waxe sayyidina amar wax bu sayyidina umar xaw sayyidina abubakar be ne ko me yow sayyidina umar dafa melni yow lu ma wax fo nga wax le contraire mu ko yàlla xam ne du loolu sama xalaat doo nga laa wax ndax xamuñ ne xalaat yu bëri mooy enrichir débat ñu ngi mel ni seen tool yi ñi ñëpp ngeen bay tamaate du baax ni ñuy bay tamaate ñi bay ceeb ñi bay leneen ok ah da ngeen tu soxlaati dara waaye ñëpp bay bay benn espèce bokkul ci xel noonu la yàlla buggiwul xalaati nit ñi bokk xalaat bu nekk am na njëriñ jël ko nga jëriñoo ko moo tax yonent bi ne jeunes yëpp nag yi ci gën mooy jeunes yi nekk ma yi màggat màggat lu waaw ci ci idée la wax de xam nga màggat moo am xalaat moo am xam-xam da sa benn mag mu dajeeg may saako ba yoo xam ne sax waaye ñu ne bu ngeen demee ngeen yàddu ko ah ñu ne ndax lan mu ba léegi moroom mi baayam yi ak moroom mi maamam doo nga lay àndal ah, tax ma raw leen bi xale bu ànd ak moroomam xeeñ moom moroomam yi ñooy yem xel soo bëggee raw say morom nag da ngay ànd sa moroom baay bàyyi ak sa moroomu maam yi ba am xelu mag sa jëmm ji jëmm xale la doon waaye yow mag ngay doon mu ne waaye mag ñi yi ci gën mooy mag yi waxambaane waxambaane lu bul nekk mag rek nga wacce di ko dee del bañ bañ kon fokk jeunesse bi ak mag ñi am relation mag ñi am nañ xalaat yu ñu xam ndax ñoo fi xale yi di ko jëli ci ñoom mag ñi soxla xale yi ndax xale yi ñoo yar doole yi